yow Abdoulaye Thiam mu koy wax ne dañ ñu war a li nga xamante moo di relève bi mais boo xoolee ossature équipe nationale boo noo xool li nga xamante moo di moyenne d'âge bi du weesu li nga xamante moo di 25 ans alors que ñu ngi wax ne dañoo bëri ay mag ay entre autres ab d'après di mais moi ça fait un bail que j'en parle c'est pas aujourd'hui et je confirme li Abdoulaye di wax dama ci ànd ak moom à football moo demee noonu il faut pas qu'on tout temps dans l'émotion xam nga ay non Sadio Mané defal nañu lii gànn lii gànn laa Kalidou lii Kalidou lële tu sais football demewul noonu ku nekk da ngay am sa période ñoom Sadio bi ñu ñëw en 2012 dañ am lu ñu ci fekkoon ñooñu dañ leen abal parce que c'est la force des des choses dans le foot le football mondial moo tënkee noonu tey intensité yi muy wax na tey Saudi ligue la xaw ma mais bokkul la par exemple le cas N'Golo Kanté bi mu cité mais les les les journalistes français mm-hmm. pour dire est-ce que réellement. mën na ko supporter mais Deschamps à donné ses raisons nee na moom suivre na ko gis na la nombre de matchs qu'il a fait le nombre de kilomètres qu'il a parcouru et donc il n'a pas eu de blessure parce que nee na sans blessure Ngolo tey par rapport ak absence yu mu am ci milieu terrain mënul bañ a jël quelqu'un d'expérimenté mmh. et donc il l'a expliqué nee na tey coupe du monde finale bi bu amoon tey Ngolo Kanté du mës a perte match boobu du ñu mës a jouer ni ñu parce que amuñu woon leader au milieu de terrain quelqu'un capable de pouvoir replacer et de placer encore les joueurs donc football moo demee noonu. Mhm. bon bu ñuy préparer dara avenir ça se prépare dès maintenant tu vas pas attendre que le garçon ait une blessure ou soit en méforme pour ngay soog a woo on peut pas jouer que sur des noms. Mhm. dañu war a mën a préparer dara booy préparer dara nag da jël ay xale même bu dee perte ay match mais ñu xam ne lii la ñuy démarrer mais fii la ñu. bëgg ne équipe bi maanaam euh, mag yi ñu wax. Euh, euh, dañoo dañoo teel dugg fi nga xam ne moo di équipe nationale parce que boo compté mag yi doo si lim cinq cinq personnes yoo xam ne bi am nañ plus de trente ans. waaw mais peu importe l' que ñooñu ñoo doon ossature bi ossature équipe day am ossature ossature boobu ñooñu ñoo constitué tey boo xoolee toute la colonne vertébrale ñan la à partir de Edouard Kalidou Gana Sadio Mané léegi ñooñu da ngay continuer ak ñoom rek ba kañ on a vu contre la Côte d'Ivoire. Mm à un moment donné taxawtuñu woon ah dañu doon amoon difficulté wu mën a tenir parce que boobu ñu ngi ñu acculé di ñu attaqué mënatuñu woon génn et donc lan moo ko indi xale mooy daw. football dafa am loo xam ne mënoo ci nax kenn man mii tey mënatoo ma dugal ci terrain du football ne ma rythme bi laa war a jouer pendant quatre vingt ou quatre vingt dix minutes ak intensité boobu mënatuma ko même bu ma ko bëggoon. yaa yàq yeeg yaram wi nangu ko. Mhm. mais loolu dafa nekk. effectivement c'est la vie loolu amul retraite dafa am ci lu nekk. d'accord maintenant tu, tu le prépares mais comme on dit ñi ngi commencer greffer. Mhm. am na xale yu dugg si ci milieu terrain bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci attaque bi mais ainsi de suite. Mhm. mais il faut le faire maintenant. d'accord doo xaar ba ñuy ñu nekk en difficulté ngay sog a xalaat loolu.